kon ku ñu fi ti teg rek jàpp nañu ne kooku dañuy ñaan kooku def lu raw li nga xam ne euh, moom la ñu def en ce qui me concerne euh, man dama bokk Benno Bokk Yaakaar donc bu ñu jëlee beneen candidat Benno Bokk Yaakaar teg ko dama ciy kontaan dama koy jàppale ndax mu gagné ndax Benno Bokk Yaakaar bi continuer présenté wul xam nga tamit yaa a des réalités yoo xam ne dafa nekk ci quartier yi su ma waxee par exemple Golf Sud ñun discuter wuñu président daf ma woo ma léegi bi ma félicité ci sama liggéey xëpp na ma léegi nag dama bëgg diw wuutu la xam nga su Ousmane Tanor Dieng doon dund woo ma ne ma léegi nag da bàyyi diw mooy toog du ci teg baat dama ko naan d'accord Aminata Mbengue su ma woowoon ne ma diw mooy toog léegi dangay bàyyi du teg baat kon président su ma woowee ne ma léegi diw laa xalaat ne daal moom laa bëgg mu doxal ndax combat bi combat xale la combat doole la euh, man damay nangu parce que quand même après avoir fait 22 ans c'est